suñu bokki jullit yëpp umma lislaam bépp bokki taalibe yëpp ci jiital ci ki yàlla jiital ci suñu kanam muy suñu sëriñ suñu wasila Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di xalifa général de Mouride ak Cheikh Mouhamadul Bachir muy xalifa général bu Daaru Musti di xalifa Cheikh Ibra Faty Mbacké ak mboolem bokk yëpp ak tarixa yëpp ak umma lislaam bi yëpp ak taalibe yëpp ñëpp maa ngi leen sant leen gërëm taxawaay bi ngeen taxaw si gannaaw Cheikh Modou Mokhtar taxaw bi ngeen ko taxaw ci jëf ak ci wax ak teew ba mu àgg foo xam ko woon sax maa ñaan yàlla sama borom mi am seenu pay <clears throat> yàlla na yàlla fay ngeen di pay te nag àlaxir moo leen ku dikk ak ku yéene dikk sa tànk ak sa dikk ak sa yéene sa jëf lépp yàlla ko yàlla gërëm te nun no te yéen ñëpp maa ngi leen diis ndimbal di leen seen tub liggéey ba ngeen dolli nu ñaanal sëñ ndax eh, natt bi na lool te yàgg kon noo ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla def isaabun ci àllaaxira yàlla mu gis foofa dara lu ko jaaxal ci daal di Cheikh Ahmad Bamba daal di bala Fatimam daal di ba ak mboolem jullit maa ngi ko ñaanloo ñëpp te yàlla teg loxo ci gannaawam ci njaboot gi ci baaxal leen ak jubal leen ak teral leen dama waxoon ba tey maa ngi koy feddali noonu naan bépp taalibe bu ajoon sëñ Moodu Muxtaar bu fekkee ci ndigal ngay wéy dox naa leen ndigal na nga dem topp ba ci gone ya la tàmbale ci xale ba ci kan gën di ku mat na ndax ñun ñëpp benn sëriñ la mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek kay sëriñ bi ay jëwriñ ñu waaye sëñ Tuubaa mi taxawal yoonu tër ni mu ko tëri woon dara du yàqu te mag mu fi ma sa gone nga fa bàyyi te te dara yàqu ko na ba te loole ma fi bu kenn agsi ci man bu kenn jëm feneen diggal naa leen ne ñëpp topp ci gone yi te ànd ak ñoom ci jaamu yàlla ak liggéey ak jub tey déglu ndigal di ko nu ànd wii ci ndigal loolu laa def ndigal ku ci kër gi bëgguma ko ak ci man bëgguma ko jàdd jëm feneen ndax sëñ Tuubaa kenn ku ne fa mu la yebal fa la defal sa mbir boo ko doyloo mu fekk la fa boo ko doyloo fenn foo jëm doo fa daje ndax fa mu la yebal nekkoo loolu am na ci firnde ju wér ndax ci lam ñu saaxaba la ko nango mu wax ne kër jee si yaan kër si Abdoulaye Ñax si njëm si Abdoulaye Ñaxi Abdoulaye Ñax bi muy tawax kër googu si njaarim donga bi dañu fay tëgg tëgg mu xumb ba sëñ bi fëgg fekk ñuy sikkar su taloon ñu ñu fëgg fëgg metti ñoo ñu ñu wuyu mu nan nañ fi bunt ñoo ministre ñu dagg fa bunt mën naa ne li yëngu fi lu mu doon ñu ko wax kër Abdoulaye ñoo xam ñoo fi ñoo seen sikkar seen seen dañ defarloo kër gi ñuy sikkar man nañ leen woo ñëw ñu woo de ñoo mu ne yéen li ngeen def lu doon ñu ne dañuy sikkar sëñ bi de ku sikkar di wax laa ashadu an laa ilaha illa ashadu anna mahamadu rasulullah laa ilaha illa mahamadu rasulullah ju ànd ak dara mooy sikkar jëriñ jëne ñokki taxaw na ko ah, mbàkk loolu dëgg waaye ñun da nga dul sunu sëriñ buñ ko sunu sëriñ digaloon duñ def ko Sëñ Tuubaa ne ak sa ñii de bu ñëpp defal ni ñoom ma tala jaamu yàlla bu fekkoon kenn ku ne fa ma la yebal noonu nga ko doyloo kon ma tala jaamu yàlla sama borom sëñ bu ñëpp defal ni ñii de ma tala jaamu yàlla sama borom bu fekkoon ku ne la boole noonu nga ko doyloo kon danaa tala jaamu yàlla te kon li ma bëgg naa comme li ngeen bëgg da ngeen ko am kon nag loolee moom laa joxe ndigal ku yaakaar sëñ Moodu Muxtaar di di jigéen di mag di ndaw ci réew mi bitim réew mooy ma la nga ak si man nga jëm ci bu fekkee ci ndigal nga nga sàkkoon la wax dëgg la nanga ma toppal ci gone ci jàppale ma gone yi ñu boole leen taxaw boole leen samp dara du fi yàqu allah ci loolu seen tubaab loolu rek laa joxe ndigal la ca des nag moo di gannaaw cant li nga xam ne mooy màggul Daaru Muxti nu toog ci weeram nga ji ni seen war a doon nu xam ne ñun ay taalibe dañuy wéy ci ndigal sëñ Ibra Faati mustu moomale boppam dara benn ko ba taalibe koy lëggee sax taalibe seen tubaab la wax doo ngay seen tubaab la wax attaay sax bu koy ñaan ndax na ngeen ah, bëgg ne na ngeen ma may attaay ndax neen lépp sëñ ko moom kon nag loolu moo fi ne ba sëñ Muntaxa mu wax jëf ko daa baax sax na wax jëru ci woon a dolli moom ba mu fa amee màggal Poroxaan rek ku di murit lay teggin ceeb sax wala tuuti dem di ko gaaral daal lu jëm ci màggal ndax ku ñuy màggal sëñ Tuubaa sax te ku gën a yëg maam soxla jaar sëñ Tuubaa amul ku këpp ci sëñ Tuubaa amul sëñ Basiru mi ko sos mi ko sosoon moom mi fi toog fi détail bi sëñ loolee mu fomm bu nu amoon i teggin kenn dootu wax lu jëm ci màggal feeg waxatul kon nag ndax ñëpp xam ne bu màggal googu man wóote wu ku bokk si axbal wóote wu ma ko du ma dem te sëñ Bassirou mi ñu yaakaar muy su muy su muy sama si axbal loolu digal Bassirou mi tax a wax rek la wax amul gaaral amul wet wetal amul dara ku nekk fa toog loo ñaan yàlla dégg na ko loo wax loo jëf yàlla dégg na ko loo def defe ko fi sa kër loolu rek mooy ndigal li bu leen ndigal jigéen ci waaye ndigal de su ko wet-wetal laaj ji ndigal rek wet-wetal gi yëpp na ko ñëpp bàyyi ñun mur ci benn baat lañu xam jëfe ndigal ak bàyyi tere lañu xam buñ ci jógul lépp wax buñ ci jógul lépp yàqu te yoonu ko du yàqu ku yàqul yaa yàqul waaye yoonu yàqu waaw yàlla bàyyi fi ñu koy topp di ko sàmm na ko borom bëggee woon ku fex ba bokk ci lu yàgg teg sa bopp na ñëpp yi ci ndigal bàyyi leen daje yi bàyyi dëj yi bàyyi lépp ba lépp ba àdduna jëllu ci jàmm bu njëgal diggéen ñu dellu ca nekkoon am ndaje duw yoon ak xumbeen duw yoon jaamu yàlla ak liggéey moom la sëñ Tuubaa woote moom la santaane te wootuwul dara jëme ci boppam muridullaahi la wax ñu ne ma ci yàlla kenn benn jaam dina ma ci moom du ragal koog jaamu ko moo te moo la ci tax a dem xaadima rasul lu tudd boppam gannaaw ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te liggéey boo garal boobu la kama jëfag la kon noon na nekk foofee Cheikh Ibra mu kenn mësul dégg mu mu mu mu laaj ndigal sax waxuma la di wéytoote ndigal Cheikh Abad nee na ma ba mu ni tere tukki ma daa fo Cheikh bu ngeen demee si kër jàmm lu ngeen fay wut mu ne ko doon ko wax sëñ bi nuyu naa ma déet man ko maa ngi toog sama kër lu ma am jàpp mu ma ne ko yow da nga mën ko mën a ah, kay ndax man ba ma ak ni fii nii laa meloon musuma fab sama tànk bi teg ko ci dëgal wala oto ci lu ñu dëgal suñ tubaab yaar mu yónni mu wala mu woo ma waaye sama soxla musuma tax a jóg soxla keneen musuma tax a jóg te fanda naa diñe naa te mosuma taxaw leb itam kon nag loolee fa leen war nekk ci wakkirlu te xam ne Sëñ Tuubaa noppi ci lépp lu des rek ci noonu des nan doyloo bi te waay ci sëriñ bi te sax ci sëriñ loolu rek laa digle kon nag maa ngi koy ñëpp di ko yeesalaat ñëpp tey ñaan yàlla suñu borom ci daal di Cheikh Ahmad Bamba mbas mi nekk ci adduna bi yàlla ko yàlla yëkkati ba mu set ci adduna yërëm jaamam ñëpp yàlla na yàlla xool bëtu yërmandeem bi yàlla na yàlla xool bëtu ñeewanteem bi te xam ne ay jaamam rek la noonu yu doole loolu la ko suñ tubaab wax mooy dëgg nun attanu ab na attanu daraam danga koy sax mu lu bi sifa yi loolu mooy dëgg kon nag suñu doolu ko yàlla na ko yàlla xool bëtu yóru ma dem ci nun ci jaamam ñëpp nag julli yeeg yéefari ak ñëpp ay jaam lañu ku dib julli sa digga moom la ku dib yéefar sa digga moom la loolu suñu yoon na ci waaye ñëpp ay jaam lañu yàlla yàlla boole yërëm ñëpp te xettali ñëpp ba jàmm def si ci ban tala jaamu yàlla nun julli ji te nun julli ñu am woy te xam ne lu jaamu yàlla dara te buñ kenn xëbal ñu sosoon diine ji dañoo boole seen dara ak seen bakkan mu jaar leen ko nan jaaral loolee te yonent bi sallallahu alayhi wasallam diine lislaam ci tumuraanke lu judd ci yooyu dellu léegi na ci dellu kon nag bu ndajee tumuraanke googu nan ci kon ñeme fab suñu bakkan gàddu ko gàllal ko ci lislaam bi ku ko bëgg a mab nu duggaale ko yow bañ am soxla ci leneen la Cheikh Sall waxal mooy dëgg lu dul diine ji du taarix ab sëñ Tuubaa bii sama yoon ñëw aw ma ceg defar aw ma ceg da yàq ku dis gor ku teg taarix foofu nga war a man ceerlu foofu laan ter kenn mënu faa jëlee incha allah te moom laa nekkuloo ku ma àndal na ngeen dellu ci gëm yàlla na ngeen dellu ci topp yàlla na ngeen dellu ci jàmm sàpp sàmm seen taalibe bi ak taalibe bi nekku ci wax ci jëf la ne ku nax sa yaa nax sa waaye sëñ Tuubaa naxul kenn te fonk diine ji di jaamu yàlla fonk waxtu juróom li ñuy def yëpp ay jaaxal dàkk yi ñuy tëj ak yëpp ñàkk ñàkk ñàkk diine ñàkk diine ak ñàkk passif rek la koo xam da ngay daw da ngay daw jàkk ndax ragal dee da nga da nga dee ñàkk la nga doon sàkku ci jàkk ji de yi fu la ko dendalee lànkal fu ñu la dendalee gàcce ak dee fabal dee ndax ba faya gàcce da nga am gàcce da nga dee ku loon na daa bàyyil mooy bàyyi jaamu yàlla ndax ragal dee lànkal dama jaamu yàlla te bu mu jaral la ko ñun ñëpp dellu ci suñu borom te dëggal ko te way ci te xam lu dara du lu jàmm jàmm yàlla képp kam moom képp ku mën a ay pexe du ko fi jëlee dellu ko tuub tuub ñaan rek ko fi jëlee ñun ñëpp dellu jàmm yàlla ak liggéey lii rek laa digle wasalaamaaleykum wa rahmatullah